asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñi ngi leen di nuyu ci seen tuut ak ci seen sant yéen ñiy safoo di seetaan seen télévision Islam TV. yow sama mbokku jullit bu góor yow sama mbokku jullit bu jigéen foo mënti nekk ci kaw suuf moo xam biir réew la wala bitim réew Islam TV moo lay woo nga jaayanteeg sa borom subhanahu wa taala. ni ngeen ko xamee dëgmal nañu liggéey bu ama am solo mooy taxawal télévision Islam TV télé boo xamante ni. ding ci mën jang sa diine sàmm ci sa njaboot te do ci dégg lenn lo xamante dafa safaanu. Islam TV dara nekul yitteem loolu la tasaare yalla nee na bi nee ci kaw suuf. amna ñu suñu studio amna ñu personnel bi nga xamante moy japp ci liggéey bi ndax lépp mën taxaw fi mu nekk képp ko xamante yaangi pikin yaangi Kër Mbaaw wala yaangi parcel di nga mën sétane télévision bi. ci réseau câble yi suñu mbébét tey mooy ñu dem fu gën a sori loolu te yaakaaruñ ko ci kenn lu dul yéen ñi safoo di seetaan seen télévision. ci loolu Islam TV soxla na cent mille musulmans yu taxaw ngir jaayanteeg seen digganteeg seen boroom ci mille francs at bu ne. cent mille yoo xamante ni tey dinañ am taxawaay bu am solo ci mbir moom mooy ku nekk at bu nekk. nga fas yéene joxe 1000 francs muy ñaari téeméer. mën na nekk ci yow sadaka jaariya mu nekk loo xam ne day wëy waxu yàlla ak yonentam di wër ci kaw suuf nit ñi di ci gindeeku ci la ci 1000 francs bi nga joxe bul ko xeeb. bu ko defee li nga xamante ni bëgg nañ ko ci télé bi li nga xamante ni yaakaar nañ ko ni mën nañ ko jariñ askan bi mu nekk luy mën a antu nekk luy mën a am. yàlla na yàlla motal ñun ñëpp. baarakallaahu fiikum. Chers frères et sœurs là, ce message vous est adressé, car grâce à tous vos efforts consentis, Islam TV Sénégal a fini par émerger. Et là, nous en sommes à un tournant décisif qu'il ne faudrait surtout pas échouer. Hommes et femmes, main dans la main, nous vous demandons tous de contribuer par une modeste somme de 1000 francs chaque année afin qu'on puisse couvrir tout le territoire sénégalais. Alhamdulillah, nous sommes persuadés que toute la Ummah islamique va se mobiliser. Car quoi qu'on puisse dire, notre communauté est dotée d'une très grande générosité, d'autant plus qu'Allah subhanahu fait la bonne annonce à ceux qui dépensent pour sa cause en disant dans le Coran, ceux qui dépensent de leurs biens, nuit et jour, ouvertement et en secret, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. et n'ont pas à avoir peur car ils ne seront point affligés.